noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaan yu kawe yi nga xam ni borom bi subhanahu wa taala rek mooy ki ko am mooy ki ko jagoo noo ngi julli di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi sallam di ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam رضوان الله على الصحابة أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مكي نبي ñu برام بمن sunu boroom bi mu ñu defalaatee tawfiq ba ñu dellu ci sunu bindab tafsir alquran al azim sunu borom mi nga xam ne mooy ku baax ki di ku bari yërmande ki di ki nga xam ne lépp lu sotti rek moom mooy ki ko sottal lépp lu baax mooy ki ko baaxal lépp lu mat mooy ki ko matal te it du dañ ci defal nit yi ay xéwal ila axiri dahri bokk na ci xéewal yi nu sunu borom defal te ñu ngi koy ñaan mu nangul nu ko mooy sunu bindab tafsir bi góor lu nañ ci ndimbalam sunu borom ba tàmbale woon suratul kahfi di tafsir ba yegg ci suratul nas فلله الحمد والمنة نسأله أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم jataay yiñ fi mas a am di ko def ak di ko déglu yëpp yàlla na suñu borom def ko mu nekk yiwu neen lan ci jot a dégg ci ay tëkkoo ki tere yàlla na suñu borom dimbale ñu ci man koo bàyyi lañ ci jot a dégg ci ay njiglee ki njariñ yàlla na yàlla def ñu jëfee ko te jariñoo noonu la ñu ñaanaatee suñu borom tawfiq ndax duñu dañ di ko ko ñaan ba keroog ñuy dajeek moom mu defal num ndimbal noo ngi fas yéene yéeg ci xaaju kaw bi tey tàmbalee ko suratul isra di tenkam tenkami jëm suratul baqara di ñaan sunu borom mi nga xam ne mooy mayeeg wér yàlla na yàlla may nu ko moom muy mayeeg tal yàlla yàlla may ñu ko moom muy maye ak dégg ci diine yàlla yàlla defal nu ko moom muy mayee yegg fa nga jëm yàlla na suñu borom dimbale ñu bañ mën a yegg fan jëm ci li nga xamante ni moom mooy bànneexu ci téeréem bu tedd bii di alquranul karim kon bindab tey bi mooy bind bu njëkk ci xaaju kaw bi tàmbalee isra di yéeg jëm ci suratul baqara saar wi nag di suratul isra ci saar yi wàcc makka la bopp waaye saar la wow ni nga dégge bopp bi rekk noonu la mbir mi mel ni nga déggee tur wi noonu la bopp bi mel isra mooy ràññaan rañaan tukki guddi lay doon ki bàyyi ba guddi bu takki bagaasam di tukki am fu jëm dañ naan ma ngay rañaan yonent bi nag alayhi salaatu salaam ci dundam sunu boroom def koo defaloon ak rañaan rañaan googu ci génn guddi mu jóge Makka dem ba baytul maqdis jóge baytul maqdis suñu borom yéegi ko ca kaw asamaan ya muy al te loolu nekkul ak gént comme ni ko ñenn ñi foogee waaye mbir la mu am ci jëmmi boppam te loolu dinañ ko leeral ba mu leer ndax am na ci ñenn ñuy askanoo xam-xam ñoo xam da ngay dégg ñuy dàq isra wal mi'raj wala sax li saxal isra dàq mi'raj gi waaye yooye wax yëpp insha allahu dinañ ko amalu jot ba mën koo tontu tontu yi woo xam ni même boo nekk borom xam-xam sax boo ko déggee da nga xam ni lii moom moo gën a yenu maanaam leneen lu jub moom isra wal mi'raj nag mbokk jullit yi xew-xew bu rëy la ci lislaam waaye dug feet nag dug feet de ba saa ba ab bañ ni ca la ko yonent bi defee woon te ab ba sax am réerantal da caa am ba nga xam ni mën a dogu exact cent pour cent ci ni dat tel ja amoon yombut waaye même buñ ko xamoon du ak feet bu ñuy feetu ci lislaam ndax xam ngeen ni saxaaba ya ñu gën a xam ay feet te gën noo bëgg tiyaaba law kaana xayran la sabaquna ilay kon sunu bindab tey bi insha allah ñoo ngi koy def ci nettali gu ñu bëgg a nettali isra ba ak mi'raj ba ak yan moy xew-xew ya ca xew ak la ca borom xam-xam yi wax mufassiruni borom xam-xam yu mag yu yàgg ya al imam al qurtubi al imam al tabari al imam al zamakhshari al imam ibn kathir al imam al shawkani liman liman liman mufassiruun yi nga xam ci àdduna nga xam ne ay téeméeri téeméeri téeméeri téeméeri mu fassirun lañ yu siiw yu nu xam boo delloo ci seeni tafsir ñu bari ci ñoom nettali nañ histoire bi maa ngi taamu nettali ibni kathir li tax ma taamu ko ñaari yëpp la ibni kathir borom xam-xam yi dëppoo nañ ci tànn ko ci pirim alquran ndax jekk gum ko jekku ak man nga ak tànn bu muy tànn yi gën a baax mu di ko indi te dëppoog asar ñaareel bi mooy ibni kathir même bu dul tafsir bi am na téere boo xam ne spécial ci wàllu histoire lay am bind ñu koy tuddee al bidaaya wa nihaaya ba muy wax dund yonent ba yegg ci ca tudd na ca lu bari ñetteel bi mooy ibnu kathir ci boppam bi muy tafsir ba yegg ci saar bi dafa mel ni ku amaat jot nag ku amul jot mooy histoire isra wal mi'raj da koo benn bennal benn bennal ba yow mi ko tiim di ko liir da ngay xam ni kii nag xam nga léeg-léeg sax nit dinay waxtaan ba mu yàgg nga yëg ni ci waxtaan yi kii kat mel na ni ko xaw a yàkkamtee pare am fu mu jëm léegi ni dina taay nga mel ni kii kat xëy na nam ko waroon a firiñtee defu ko waaye Ibn Kathiram ku dellu ci tafsiram moom dëgg dëgg la ngay njëkk a yëg mooy kii de bi muy tafsir lii am na jot nag jox na ko jot gu mat ñettel bi nak te mom lay mujjé moy al allama allaama muhammadul amin ashanqiti rahimahullah nga xamni ni ko xam ñep xam nañ ko ci firim alquran ñu ko tuddee al allaamatul qur'an yi nga xamni mu yufassiru al qur'an bil quran talib na benn téere tuddee ko adwa al bayan fi idah al qur'an bil quran bo ca delloo bi muy tafsir aaya ji mom nekku fa sax di jema andi indi histoire isra wal mi'raj lu bari dafa dal di wat rek ni ku ko ku ci bëgg lu gën a leer demal ci téere ibni kathir ndax ibni kathir kat andi na ko te rafetal na nam ko indee kon loolu muy seede borom xam-xam jëm ci borom xam-xam isra muy rañaan nga mi ngi amee woon màkk waaye nii ma lay bëgg a wax noonu la demee ñëw na ci ay riwaayaat yu bari waaye riwaaya yi dañuy mottalante léeg-léeg ma tudd benn riwaaya wax ci loo xam ni waxoon naa ko waaye di nga ci déggaale lu may wax lu bees lu ma waxuloon ci riwaay bu njëkk bi loolu mooy sabab répétition bi di am bi maanaam su ma indee riwaayaat yi rot ci isra wal mi'raj di nga gis loo xam ne lii waxoon naa ko léegi waaye waxaat naa ko ci beneen riwaay version waaye bersion bu di nga ci déggaat leneen lu bees lu bees loola moo tax ma répété waat tuuti euh, Ibn Kathir mu ngi nettali ci riwaayaati Isra wal Mi'raj andi na bi ci njëkk riwaaya anas ibni malik imam ahmad nettali ko ñu jëlee ko ci anas ibni malik mu ne yonent bi day sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na utiitu bil buraq damaa jékki ba mu yàgg rek ñu andil ma daaba joo xam ni mi ngi tudd al buraq nga xam ngeen ni bi alayhi jamonoy isra mi ngi ko fekk ci ay xat-xat yu méttee métti yéeféri màkka yi di ko weddi Abu Talib faatu Khadija faatu kii di ko protéger en tant que soxna kii di ko protéger en tant que baay bu ndaw te am doole ci askan wi ku ñu déggal ñoom ñaari ñëpp ñu faatu problème yi bari ci moom lool bopp bi fees dell ñu tëll tëllaaral waaye isra wal mi'raj ni mu kéemaanee version yi ci ñëw ak ni ko suñu borom jëlee Makka yóbbu ko baytul bi di dox weer ñu yëgal ko ba ca asamaan ya yaakaar naa ni ku déglu histoire beeg ni mu demee di nga xam ni gis nga léeg-léeg doomu aadama bu nekkee ci ay xat-xat am na yu ñu koy defal wala xeeti déplacement yu muy def rek mën naa wàññi ci moom lu bare bare bare nee na dañ maa indil muy daaba joo xam ni dafa weer yées na mbaam ci àggul ci berkeel xam ngeen ni dañuy wax ni berkeel mooy doomu fas ak mbaam ci ñenn ñi koy wax nga xam ne daabaa yoo xam bu dee mbaam moo ko sut bu dee fas fas ak sut mu ne ci diggante bi nee na alburaaq noonu la mel nee na alburaaq bu siggee bët bi fu mu ko sànni rek tànk ba dana yegg ko loola moom gaawaay nga xamee wuñ daaba di gaawee noonu neena ma war ko bi ne sayyi ak man rek ma nga téré ji baytil maqdis muy jérusalem nga xam digënté makka ak baytil maqdis ñako ko ci jamono jojja gilem go war lu mu njaxlaf njaxlaf dina ko dox wër neena ma duggu fekk fa benn barab boo xam ni nee nañ yonent yàlla bu fa mës a jaar xam nga baytil maqdis jaaruwaay yonent yi la woon du Eesa kese de du Muusa kese de du Suleymaan kese de du daawud kese de yonent yàlla yi sooy sëñ ta wax yépp da ngay wax yonent yàlla yu bare bare bare bare bare bari ku ca dëkkuloon baytul maqdis it jaar nga fa ndax barab la woon boo xam ne seen ab barab la mu mel ni dañ koo wan yonent yàlla yi ku fa mas a war giléem ba ñëw fa mbaa aw fas fa nga koy yeew mu ni ma dem yeew fa daamar ji ma war muy alburaaq nee na ma daal di wàcc julli ñaari rakka daal di génnaat nee bi ma génnee jibril indil ma këll bu def meew ak këll bu def sàngara ma tànn këll bi def meew jibril ni ma asabtal fitra yow day laa jël nga la gën a baax nag lañ taamu mu gën a baax ma bàyyi sàngara ñu yéege ma ba ci asamaanu àdduna bi ñuy séen muy sama ad dunya nee na jibril daal di fëgg ñu ubbil ko kookukat la mën la jibril koo àndal muhammad sallallahu alayhi wa mbaa dañ koo yónni waaw waaw ñu daal di koy ubbil bunt bi bi mu nee tëll rek yonent yàlla aadama laa jàkkaarloo alayhi salaam kii day tey guddeem kii day guddi la gu foor la nar a doon ndax fa mu jóge ci ay problème ak kéemaan yim nar a gis dana lañ batiwaat wëlbatiwaat xol bi nee na ma gis aadama mu dalal ma ñaanal ma tatagal ma ma yéegaat jëm asamaanu ñaareel koŋ-koŋ ñu fëgg koo kan la jibril koo àndal muhammad sallallahu alayhi dañ koo yónni waaw ñu ubbi la bunt bi rek ma fekk fa ñaari doom yi bàjjan yi muy yaxya ak isa ñu ñaanal ma yiw dalal ma ma romb leen yéeg ci asamaanu ñetteel ñu fëgg koo kan la jibril koo àndal muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yónni waaw nee na ba ñu ubbee ma dajeeg yusufa nee na bi ma nee tëll rek taar baama gasandu nee na uatiya chatre al xusni genn wàllu taaru àddina lañ ko koo jox loolu nag benn waay mas na maa laaj mu ni ma waaw loolu est ce que day tekki ni yonent bi alayhi salaatu salaam kon Yusuf moo ko dàqoon ma ni ko déedéet genn wàllu taar lañ ko joxoon yonent bi da ngaa fàtte ni moom taar lépp lañ ko jox bi te yonent bi diw lañ jox genn wàllu taar moom waxut lañ ko jox moom bi kon yëpp nga bàyyi ci xel nee na ma gis Yuusuf taar baa ma gasandu nee na mu ñaanal ma yiw tatakal ma ma dellu ci asamaanu ñeenteel ma fëgg kookan la Jibril koo àndal Muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ ko yónni waaw ñu ubbi ma daje fa ak yonent yàlla Idrissa nee na Idrissa tatakal ma dalal ma nee na ñu daal di fay jàng aaya ji suñu borom na wa rafa'naahu makaanan aliyya place bii mu nekk place bu kawe bii yàlla ma ngay seede ci surtu Maryam ne maa ko fa yéegal te loolu na ko suñu borom waxee ci surtu Maryam loolu tafsiroon nañ ko na ñu yéegaat jëm asamaanu juróomeel Jibril fëgg koo kan la man la Jibril koo àndal Muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ ko yónni waaw nee ma fekk fa Haaruna yonent yàlla Haaruna di magi Muusa mu dalal ma tatagal ma ma ñoqaliwaat jëm asamaanu juróom-benneel nee na ñu fëgg koo kan la Jibril koo àndal muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yónni waaw nee bi ñu tijjee palaa fekk yonent yàlla Muusa alayhi salaatu wa salaam mu ñaanal ma dalal ma ma ñoqali jëm asamaani juróom-ñaareel bi jibril fëggee koo kan la jibril koo àndal muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yónni waaw mu ne ba ñee tëll rek yonent yàlla Ibrahima laa jàkkaar lool nee na bi ma gisee Ibrahima nag maa ngi ko gis mu ngi wéeru ci fu ñuy wax baytil maamuur maanaam mi ngi mel ni yow mi wéeru ci miir bi wala yow mu demoon ba ca Kaaba ga wéeru. ca asamaan sa am na barab bu ñuy wax baytul maamuur nee na boo bëggee xam baytul maamuur nee na barab la boo xamante ni chaque jour ba yàlla sàkkee àddina ba àddina yi tukki chaque jour soixante dix mille malaaka danañ ko def tournée te ñu dem rek duñ dellu loolu moom yaakaar naa ni loo gàtt gàtt àlluwa lu sa lu sa fer iji yeex yeex lu sam njàng tuuti tuuti ba yàlla sàkkee àdduna ba tey ba tey waxuma la àdduna tukki de ba mu ko sàkkee ba fii may waxtaanee sama tafsir bii buñ ko calculé woon soixante dix mille malaaka par jour sept jours soixante dix mille malaaka par trente weer soixante dix mille malaaka par an yaakaar naa yaakaar naa dana bari de par an laa wax de benn at nga bëgg koo lim nag mille lim ay téeméeri ah nag loolu sax xaaral man. loolu sax daanaka dafa jëru di jéem a lim parce que boo ko doon lim fi nekk xajul ci machine xajul ci ordinateur bopp taxul di wax wa ma yaalamu junuud rabbika illa hu yàlla rek moo xam ay mbir soixante dix mille malaaka par jour buñ ne la woon soixante dix mille malaaka par jour ñoo koy wër ña waroon démb ñooy war a tey loolu sax kéemaan la waxu malaak nag ñu ne la ñu wër dem duñ dellu siwaat ñeneen ñëw malaaka yooyu fuñ nekk kenn xamul moo tax suñu borom yonent yàlla bi ni appati sama asamaan saa ngi naa xatatatatatat waaye yéen dégg leen saxaaba yi ne ko dégguñu ko de mu ne fi mu ne nii asamaan saa ngi naa xatatatatatat nee na fu tànk mën a tege ndëggub tànk te lu dul da ngay gis malaaka bu sujjoot wala bu rukoo amul di jaamu suñu borom yàlla subhanahu wa yàlla mu ni yusabbihuna layla wa nahaar ñi ngi sàbbal yàlla guddeeg bëccëg laa yafturuna ñoom xamuñ tayal xamuñ yokkat duñ sonn inna alladina inda rabbik ah yàlla mu ni ñene fa yàlla la yastakbiruna an ibadatihi ñoom duñu rëy rëy lu mukk ci jaamu wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun ña ngay sàbbaal seen koy sujootal loolu nag jom ju rëy la war a def ci ñun ci ak góor góorgóorlu ba bu borom bi subhanahu wa taala dogalee santaane ñëw ci ñun ñu góorgóorlu ci santaane ya nee na ma gis Ibrahima wéeru ci baytul maamur nee na foofa nag falaa gisee li ñuy tuddee sidratul muntaha sidratul muntaha ji ngeen di jàng ca suuratu suratu najmi inda sidratil muntaha indaha jannatul mawa id yaxsha sidrata ma yaxsha nee na falaa gisee muntaha muy garab gu doy waar nee na sidratul muntaha daal gis nga nopp ñay ni mu rëyee ak ni mu ubbeekoo tàlleeku nee na xobi garab ya garab ga noonu la mel nee na meññent ma fay génne doom ya mi ngi toll ni xilaal xilaalu hëjër à l'époque ci jamono ju yàgg ja dafa am luñ daan nattee ndox xam ngeen ibnu xajar mi ngi nettali lu mel ci fatxul baari ida balaga al maau qullatayni qulla mooy mufradu xilaal qulla qullatayni xilaal qulla benn ndaa la woon fii fii ndakaaru gi xamuñu ko ndax ndakaaru ndaa yi fi jot a ñëw dafay jóox te ay ñaq la ndaa yu ndaw la waaye boo demee ci àll ba da ngay fekk nga ndam ndaa boo xamante nii xaw naa mën a def deux cent litres loolu ñi mas a dem kaw ga wala ñi fa dund wala ñi nekk ay kaw kaw xam nañ li may wax am na ndaa yoo xam ni daanaka ay cent cinquante litres cent deux cent litre ndaa yi da koy def ndaa yu tooy noonu ñu ko daan defaree ca barab bu ñuy tuddee hëjër ñu koy tuddee xilaalu hëjër mooy ndaa yi doon jóge hëjër nga xam ne am nattukaayam yonent yàlla doon wax ida balagal maa u xullatayni lam yanjus saa boobu ndax méttee ñaari xul la rek même gone mën naa ñëw saw ca wala am neefare tabbi ca maanaam daal la ca tabbi bu dee kul dafa soppi melokaan jëmmi am saw tabbi na ci loolu kese loolu kese nga am amoo xet ba amoo lenn ndox moom boo dikkee laat na mënees na caa jàpp kon mu ni doom ya ma nga toll ni xilaalu hajar yéen a ma gën a xam ne ndaalu mën a def deux cent litres doom bu toll noonu xam ngeen doom bu kéemaane la te xam ngeen ñay ni mu toll xob wuñ ñi fii lu ñuy wax dañ naan xob xobu xël ndax rëyaay ba wala xob wu gën a rëy xobu xën ñu dem banaan la xob wu toll ni noppi ñay nga xam ni waxuma la yaatuwaay waaye guddaay ba mu ne xob ya noonu la toll nee na man daal awma ci lu dul jékki-jékki rek affaire bi mel ni xam ngeen seen jeu jeu de lumière yooyu xam na nga jékki jékki-jékki mu xonqaat nga jékki-jékki mu soppeeku mu ni man daal awma ci lu dul rek yàlla muur garab gi xeetu taar taar boo xam ni neena na meuna tuma misaal sax garab ga nu mu xam nga mu fi nek na xilaalu hajar rek xob ya nga tol ni nopp ñay waye neena yàlla jékki-jékki rek melni ko mur ak ab taar boo xam ni nee na mënee su sax lam yastadia la yasma fa ma stataa ahad min xalqi llahi an yasifaha min xusniha legi nak far kenn ci mbindee bi sax même bo ne gis na ko meuna to ko melal ndax rafet gi mu rafet allahu akbar neena fofa lama yàlla déeyee lam ma déey foofa la ma wax la ma wax yoo mu farataal ci man juróom fukki julli par xam nga juróomi julli la suba tisbaar takkusaan timis gee bu njëkk nag juróom fukki julli la woon ni ngay limee suba tisbaar takkusaan timis gee xaw ma yan tur lañ ko joxoon waaye daal noonu nga koy ñëwee ba mu am juróom fukk nee na bi ma tourné ma romb yonent yàlla Moussa alayhi salaam comme romboon naa ko bi may dem Moussa ni ko hey kaay mu ñëw. mu ne ko waaw yow loo jëlee fa sa borom yàlla mu ne ko sama borom yàlla de farataal na ci man juróom fukki julli Moussa ni ko dellul fa sa borom na la ko wàññil man maa la jiitu ci nit ñi te yàgg naa ci banu Israila waaye nit ñi duñ ko respecté juróom fukki julli yi du jàll nee na ma dellu fa sunu borom mu tegg ci juróom ma ñëwaat ci Moussa Moussa ni ma waaw loo jëlee fa sa borom ni ko ah, teggi na ci juróom te mu def quarante cinq julli mu ne ko dellul fa sa borom na la ko wàññil nit ñi mënul loolu mu yàlla xam na loolu lépp de ne yàlla subhanahu wa ta'ala mënoon naa def mbir ma rek yam fam yam te juróom yi rek waaye lii mbir ma noonu la demee am na lu ca suñ borom nam nee na ñu wàññi quarante cinq mu ñëwaat ci Moussa ma wax la ma ma dem ñu wàññi mu des trente cinq ñu dem ba mu yàgg ma ñëwaat ma dem ba yàgg mu des vingt cinq ma dem ba mu yàgg mu des vingt noonu laay ñëw ci Moussa muy wàññi muy dem muy wàññi ba mu yegg ci juróomi julli Moussa li ma gis nga même juróom yi sax nit ñi duñ ko respecté mu ne ko ah istahyaytu min rabbi dëgg dëgg dëgg rus na maa delluwaat nag nee na bi ma nee rus naa delluwaat fa suñu borom nag nee na foofa lañ wéyalee juróomi julli yi riwaaya boobu Ahmad nettali na ko ci musnad imam muslim nettali na ko ci siyaaq bii ma tudd imam muslim ci saxiixa kon loolu benn la ci riwaayaat yi riwaaya boobu li tax ma njëkke ko mooy xaw na cee gën a gudd waaye beneen bu ñëw bu moom rek boo ko dégloo am na luñ nuroo am na luñ nuroowut bokk na ca imam ahmad nekk li ci musnad ba léegi euh, ñu jëlee ci anas nee na yonent bi ne dañu ma indil alburaaq bis bi may rañaane nee na mustrajan ñi ngi ko tegal ak teg bu doon ci suñu sareet ñu ne amal nañ ko garde suuf garde kaw amul nuxura amul arrière amul bricole amul laab am lépp maanaam lépp lu kon bu den aw fasu course la ñu ne tegal nañ ko ak teg akum dégal dañuy toog wala gëléem bu dee dëggal nee na ma dem ba yéeg affaire bi di cëppi cëppi xam nga loolu amuloon ci riwaay bu njëkk bi muy cëppi cëppi mel ni daal ku nanguwul ku yéeg ci kawam nee na jibril daal di koy wax ni ko waaw maa yaxmiluka ala hada kii nu muy def nii nee na jibril daal di wax daaba ji ni ko waaw kii nu muy def nii xanaa xamoo ni ñi la mas a war ci ay yonent yëpp kii la nar a war tey moo ci gën nee na bi mu wax waxee loolu affaire bi dañuy tekk tekkaaral ñu gis kawar yi commencé di génn ñaq mel ni bu doon bu doon kurus xam ngeen rus ba ñaq day rus ba commencé di ñaq mu ne ñu gis mu ni teg ñu gis aw ñaq di tàmbalee génn ci moom yonent bi daal di yéeg sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadis boobu al imaamu Tirmidi nettali na ko wa kadalika Ahmad mi ngi nettali ba léegi ci musnad ñu jëlee ci Anas ba léegi ci riwaaya bi yonent yàlla bi nee na sallallahu bi ma rañaanee day romb naa aw nit woo xam ne suñu borom daf leen a saxalal ay we weyi gudd yoo xam ne min nu xaas aluminium la weyi weyi dafa gudd gudd gudd ba kenn xamul guddaay ba waaye weyi ñu ngi ko liggéeyee matière aluminium nee na bi ma ñëwee tiim nit ñi maa ngi leen seen nii la ñuy def da ngay gis ku jël ñaari loxo yi rek xëj ci kanam gi rek xott mu jëm suuf deret dinañ sata sata xam nga loolu moom jaaxlawu na lool nee na ma laaj jibril waaw mbaa jaam lii moom lan la mu ne haulaai alladina yakuluuna luxuuma annaasi wa yaqaauuna fi aradihim yow xamoo ñii déedéet mu ne ko ñii de ñooy ñi nga xam ne biñ nekkee ci àdduna la nekkoon seen yitte mooy nekk ci deru jàmbur yi ñee ngay jëw ñee ngay rambaaj ñee ngay fen ñee ngay jaxase waaw mbaa yëg nga diw ak jëkkër ji yow nga digg diw ak jabar ah ma ne diw jaaxal na ma diw saa yi xaw ma fu mu jëlee xaalis ma ne moom daal ci deru nit ñi rek yaqaawna fi arabi nas diw jaaxal na ma xamul fu mu jëlee xaalis mu suyoo bàyyi ko mu dem loolu dafa jar nga yàq sa waxtu moom daal affaire dafa gaaw lool lool bu gaawee mu suyoo bu mu duggee bàmmeel doo ko fekk bu ko yàlla àtte doo ko fekkee bàyyi ko moom waaye déedéet dafa mel ni doomu aadama yi tey pour ñu wax ci deru nit daf leen di neex subhanallah alazim kenn ci magi salaf yi nee na man de bu dara desul lu dul jëw mu ni sama yaay laay jëw ñu ne ko lu tax muy damaa xam ni euh, boo jëwee nit ñu jël say tiyaaba jox ko mu ne kon baal ma jëw sama yaay ko defee man tiyaaba yi kay balaa moo dem feneen nag sama yaay sama yàllaa ko gën a yéene benn boroom xam-xam da doon def dar suñu nag ñu laaj ko laaj mu tontu tontu bu doy waar diw sàngam di jaamukatu yàlla waaye moom daal foo ko fekk ñu ngi ci deru jàmbur yi waa kooku loo xam ci moom mu ne li ma ci xam mooy yàlla daf koo tàggat pour muy jaamul yàlla nit ñi xoolal wax ji ni mu fooree yàlla daf koo tàggat pour muy jaamul yàlla nit ñi mooy moom day jaamu yàlla di ko verse ci contre banque jàmbur loolu loolu dafa métti toog mbokk juri ci jëw cala rambaaj cala wax lu sa yoon nekkut cala wax lu la leerut cala wax lu la wóorut cala damaa foog ak damaa defe nekk damaa yaakaar ak boo demee ak amaan naag yooyu yëpp ay waxi naxas ak andang la déedéet waxal lu la leer wala tax maa lay sale ka bihi alma leerul suñu borom mu ne sa ci dugg yaa xëy jëm ah man de wax dëgg yàlla loolu nag aw ma ci benn xabaar bu leer génn nga noppalu waaye fi ni ñun pour pour pour pour daal nga wane ni yow mii jàmbaar nga daal sax nga jéem caa xam dara léeg-léeg kee ngay jëw te daanaka kenn mucc ca jëw wax lu sa yoon nekkul waxi rambaaj waxi tangalangaay waxi nangam defal ni imam Bukhari rek mu ne yowmal qiyaam moom xaw ma lan waaye man danaa def nii ma ne yàlla yow yàlla xam nga ni sax man moom musuma jëw kenn sama yoon néew ci di jëw kenn man ay jëw moom du sama problème leneen laa wax waaye jëw bokku ci loolu kenn ku nekk war na koo jéem ci boppam nee na ma laaj ñii ñooy ñi nga xamante ni ñooy doon dal ci deru nit ñi di wax lu ñaaw ci nit ñi gis ngeen surtout jamono bi ñu toll bokk jurit jamono jii nga xam ne daanaka jamonoy internet laag facebook ak yu demee noonu nga xam ni kenn ku ci nekk yaa ngay seet fa mu gën a ñaawee nam gën a sikkoo nam gën a suturoo nga xa te wallahi saa boo xawee sa sutur mbokkum julit même bu fekkee moom moo def bàkkaar nga xawi suturaam yàlla dina xawi sutura yent yàlla bi nee na yàlla nee na boo suturaal sa mbokkum julit yàlla suturaal waaye dama ne waa ji li mu def muy lu bon bi nga koy dénoncé fekk xam nga dénoncé gi dafa am ay yéene dama koy dénoncer à cause de kii mi ngi nax nit ñi ci turu diine man sama diggante yàlla xam naa ni li tax may wax mooy ngir nit ñi jariñu bañ loolu da ci am tuyaaba doo ci am bàkkaar waaye lépp ci nit ñi ni ñuy def mooy tudd ayibi jàmbur wax lu nëbb woon donte nit ki dafa def bàkkaar yëgal ni balaa ngaa faatu yàlla dina xaalis sa sutura yële kon suturaal sa mbokkum jullit ñi suturaal la defe naa moo gën a wóor de ndax ki ngay suturaal boo ko suturaalee du la wàññi dara te yàlla bu la suturaalee mu yokk la dara kon mi ngi noonu. yonent bi saa sallam nee na ci beneen riwaaya te riwaaya boobu bi ma mujjee wax abi daawud timi solo na ko ci sunan beneen riwaaya boo xam jëlee nañ ko ci anas ba léegi nee na maratu laylata usriya bi ala musa alayhi salaam qaiman yusalli fi qabri nee na romb naa kuy julli ci biir bàmmeelam ñu ma ni waaw kuy julli kan la ñu ne ko kii de mooy yonent yàlla musa alayhi salaatu wassalaam kon romb na yonent yàlla musa alayhi salaatu wassalaam muy julli ci biir bàmmeelam riwaaye boobu tamit al imam muslim solo na ko ci saxiixam ba léegi jëlee nañ ci malik riwaayab anas anas boog ibni malik ibni saasaata jëlee nañ ci anas ibni malik anas jëlee ci malik ibni saasaata imam ahmad ba léegi nettali na ko ci musnad anas ibni malik nee na jële nañ ci Malik ibni Sa'sa'a mu li ni ko yonent bi nee na man de bi ma nekkee ci ab néeg ba mu yàgg rek fekk mu ngi tëddee woon jaaxaanaay maanaam dafa tëddoon nii jaaxaan xam nga loolu amuloon woon ci riwaay bu njëkk bi mais damaa jékki-jékki rek ah am lu ni janeet sama kanam fekk am na ñu nekk foofu ci néeg bi mu ne maa ngi dégg waaj naa ko kii ci digg bi la kii ci digg bi la nee na ngóor si daal waa ji daal di jabal si man rek kooku malaaka la muy jibril nee na bi mu yeggsee dafa xotti sama dënn bi am na beneen riwaaya buy def koo xotti ba yegg ci tolloog jumbax te loolu des defoon na ay jeexintal ci sax ñu amoon xaatamu wax ñu koy misaal dañuy wax ni même bu bu yëkkati woon biir bi dangay ngay mel ni luñ opeere ba ñaw ko maanaam du du ab waaye ab marque marque la bu fa des bu lay wan ne yëpp yi kat moom waxuma la amoon na nga di ko dégg kese waaye mandarga ma sax am na lu fi des ba tey mi ngi mel ni ab bant ne la xureet treet wér nga ba affaire bi commencé la waaye ku taxaw di seet di nga xam ne fii la bant ba jaaroo mu gis màndarga ma nee na bi ñu xottee sama xol bi nelawuma pikiiruñ ma ma maa ngi yët maa ngi xool nee na ñu ni dépp xol bi génne ko nee na fekk jibril mi ngi indaale woon ndab loo xam ndabul or la nee na mi ngi euh, fees dell ak imaan ak xikma nee na ñu jal di jël xol bi raxas ko ci ba mu set delloowaat ko ca palaasam doog may indil daaba jooju di weex di alburaaq nee na ma daal di yéeg ba ñu àgg ci asamaanu benneel kookan la man la jibril koo àndal muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ ko yónni naa am na yegg si nee na ma fekk fa aadama riwaay boobu ñëwoon na kon mën naa koo tënk rek mu gën a gaaw nee bi ma yegtee ca asamaan sa ca topp ma fekk fa Muusa alayhi salaatu wassalaam neene bi ma rombee Muusa rek tuuti ma dégg Muusa ni di jooy ñu laaj ko waaw yow looy jooy Muusa mu ne ah damaa xam de kii dama kaa ñee ndax ab yonent la bu ñu yónni ci sama gannaaw waaye li ëpp ci aw xeetam danañ dugg ajana maanaam daal mbokk yi xeetu Moussa bari war nañ de fi mu nekk nii boo jàppee ni yonent ba mu faatoo ca ak léegi mi ngi nekk mille quatre cent trente sept junni at ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar affaire baa ngi rëy rëy ci yow te ba léegi xeetu yonent yàlla bi jeexagul banu Israël nag sëq ak jóor woon sëq ak jóor laa wax banu Israël la ilaha illa ay nit lañ woon yu baree bari bari waay goo xam ni <coughs> moo tax xadiisu shafaa bi yonent yàlla bi naan ma gis ab yonent ñëw indi ànd ak kenn nit yonent ñëw àndut ak kenn yonent ñëw nangam ñetti nit topp ko ma gis koo xam ne bi mu ñëwee li ko topp ci mbooloo moom dama ni saa xeeta ngoog ñu ne ko déedéet wii di sa xeet wii xeetu Muusaa la kon loolu firnde la bu lay wan ni kon Muusaa aw xeetam bari woon nañ torop torop torop te mën a gudd fan te dëgër fit te bari doole nee na mu ni ab yonent daal dañ ko yónni sama gannaaw di doom sax ci man waaye li ëpp ci aw xeetam dañuy tàbbi àjjana maam lii tàbbi àjjana ci xeetam mooy ëpp li tàbbi àjjana sama aw xeet xam ngeen yéen toog na mu yàgg mu ne saxaaba yi ngi yaakaar ni àjjana de bu ñu dajalee mbooloo ma yëpp yëpp yëpp yéen ëpp ñu fay dugg yàgg mu ne ah même buñ ko xaajoon ñetti xaaj yéen ay nekk ñetteel ba saxaaba yi takbiir mu toogaa dem yàgg mu ne bu ñu ko xaajoon ñetti xaaj yéenay nekk ñaar ya saxaaba yi takbiir mu dem yàgg mu ne bu ñu ko xaajoon sax genn wàll ga yëpp yéen lay doon ah waaw wenn xeet wii nga boole ko xeet yi jiit woon yëpp yëpp yëpp Muusa Suleymaan Daawud Idris Zulkifli Ayuba ñoom ñëpp mu ah loolu loolu loolu jar naa sant yàlla bu baax a baax a baax a baax te ñaan yàlla bokk ci yàlla suñu borom boole ñu ca ñooñu nee na ba léegi ci riwaaye boobu nee na bi ma bëggee ci benn asamaan teg fa yent yàlla Ibrahima mu dalal ma ñu ni ma kii mooy Ibrahima ma gis sidratul muntaha nee na xob yaa nga tol ni noppi ñay doom yaa nga tol ni xilaalu hajar nee na ñu ni ma fii mooy sidratul muntaha nee na falaa gisee nag ñeenti dex loolu tamit amuloon ci riwaay bu jiitu ñeenti dex nee na ñaari dex yu fës ak ñaari dex yu nëbb nee na ñaar yu fës ya day ca àjjana lañ nekk ñun yu nëbb ya ca àjjana lañ nekk waaye yu fës yaa ngi ci àdduna nee na ñaar yi nga xam mooy yu fës yi mooy an niil ak furaat naharu niil bi ngeen dégg furaat bi nekk ca masra nee na mooy ñaar yi nee na ya ca des moom mooy ñaar ya nekk àjjana nee na fa lañ ma yëkkatee nag ma daal dem ca baytul maamuur riwaaya Qataada ñu jëlee ci xasan mu jëlee ci abi hurayra yeneen bi ne ba ma gisee baytul maamuur juróom-ñaar fukki junni malaaka par bis ñooy dugg te yu dugg duñu génnaat nee ñu daal di may indil nag ñaari ndab bii sàngara bii meew bii lem bi ina in min xamr fii dafa indi sàngara indi lem indi meew kon bale ñaar la indi woon fii mu ni ñetti ndab lañ ko indil muy sàngara ak lem ak meew nee fa axadatu labana di ma jëlee meew mi ñu ne ah yow kat hadihi alfitratu anta alayha wa ummatuk lii de mooy fitra mooy mooñub yàlla bu baax bi mooy cosaan li nga xamante ni yaag saw xeet yéen a ko moom nee na ca lañ farataale man juróom fukki julli ma wàcc ci Moussa Moussa ni ma waaw lu ñu farataal ci ne ko juróom fukki julli mu ne ma xeet bi duñ ko man maa la jiitu ci banu Israël te ñoo gën a dëgër saw xeet saw xeet ñun wax nañ ñu suñ téere yi ni muy mel demal suñu borom dellu nee bi ma delloo ñu téq ci fukk kon gis nga riwaay bi wóote bee bële ñu teq ja juróom bii mu ne ñu teq ci fukk buñ teqee fukk quarante mooy des nee na bi ma yegsee mu ne ma loo jëlee ci sa borom ma ne ko xanaa wàññi nañ ci fukk de mu des ñeent fukki julli mu ne ko même ñeent fukki boo ko yóbbu xadis bi saa moo koy wax naa dëgg dëgg dëgg bu saana xam na li muy wax de waaw li muy wax xam na ko lool lool lool xawma njàng mu njëkk ma daa bokkut ak njàngum léegi même déet xadis bi ak i riwaayam li muy gudd gudd gudd noo ngi fàttaliku ba ñuy nekk ay gone yaay tur tàng nga xam ni li may wax ni boobaag léegi ñaar fukki at yi moom teg na lu bari sax lan ko doon jàng te maa ngi fàttaliku dañ ko doon mokkal su ma juumul yooyu di tudd ak tarbiyatul islamiyya nga xam ne léegi dafa mel ni modernisation bu bees bi daa dugg ba ci njàng mi façon yi téere yi ñuy jàngee ak daan jàngi bokk waaye gis nga yu am solo yi sànq ci ngoon bi may waajal maa ngi fàttaliku lu bari ci jamono jooja di fàttaliku yëf yi ni mu woon ban koy doog a dégg di fàttaliku yëf yi ni mu ko doon mokkalee gis nga yi ngeen di taree Fatiha noonu lañ doon taree lii te fi nekk nii su ma taree léegi ñetti baat rek affaire bi ñu ma foo ma tegoon tax am njàng moom tegal ci sa pegg tey nafar rek bu dul loolu fàccat lay def dem yoon maa ngi fàttaliku dañ ko doon tari par altine lañ ko doon jàng dañ ko doon tari comme ni nu doonu taree Fatiha ah di ko firi affaire bi da lay da ngay da ngay yàkkamti bisub altine jot ndax mbir mi kat dafa xaw a kéemaane lool di la ko jàngal ay doget doget comme ay gone lañu woon loolu da wan maanaam yii dafa jaadu ñu di ko jàngal sunuy gone te xam ngeen lu ma jublu ci nettali bi gis nga loola def na jeexintal yu rëy ci bëgg gi gone yi doon bëgg yonent bi ak fonk ko ak aw xeetam ak yu bare bare bare yoo xamante ni xam ngeen ne xale dafa baax ci moom lool nee na noonu ñu di ko wàññi fukk fukk fukk fukk fukk ba mu yegg ci fukki julli ba mu des fukki julli nee na mu fukki julli ma ñëw Moussa ni ma loo ko jëlee ma ne ko ah suñu borom waaji léegi du fukki de affaire bi yomb na mu ne ko même fukki yi sax duñ ko mu ne ko delluwaatal mu ne suñu borom ma dem mu teq juróom yi mu des juróom nee bi mu teqee juróom yi ma ñëw ni ko waaw ah léegi de wàññi nañ ci juróom juróom a ci des mu ne ko farja ila rabbika fasalu taxfif demal neel yàlla na ko wàññiwaat sa xeet duñ man loolu nee na ko ah sa'altu rabbi hatta stahyaytu dem dikk gi dem dikk xam nga loolu sax day dal nit léeg-léeg am na yenn xeet yi ñaan yoo xam bu yàggee da ngay rus nee na rus naa de walakin arda wa usallim gërëm naa dogal suñu borom nee na ñu daal di dégg ab woote suñu borom ab woote woote bi di wax naan ah farata ji de jàll na kon te oyofal naa ci samay jaam riwaaya boobu al imam al buxaari ak muslim génn nañ bu ni mel ba léegi buxaari nettali nañ ñu jëlee ci anas ibni malik nee na pour rijaan taq fi bayti damaa jékki-jékki rek bu doon dal bi nii la mel mu jekki jékki rek bu am ab dal la muy def dafa xappati may séen ca kaw comme dal amul woon ay xeeti mbaar la yu ñu defaree lii ci tàndarma ki ëkkam nee na jékki-jékki rek bi ni nga reet ubbeeku may séen ca kaw nee na jibril daal di cëpp wàccee ca barab ba may séen bi ñu yegsee rek direct la def rek ci sama dënn bi daal di koy xotti nee na mi ngi indaale ndoxum zam-zam def ko ci ndabal or ndab loo xam ne mu ngi fees dell ak iman ak xikma nee na mu daal di raxas sama dënn ba mu set wicc raxas googu xam ngeen ni bokk na ca xeetu soxor ak añaan ak bon ak fayantoog siis ak ah yooyu yëpp yi doyadi yi génn na ci moom moo tax wa innaka la ala xuluqin azim dooga tànn yi nga kii dañ ko préparé de yéen sa salam dañ ko préparé lool sax lool ba pare rek ñu feesal ko xikma ak xam-xam ak iman nee ma yéeg ak moom ci asamaanu benneel nee na ma ni jibril waaw bu jibril fëggee koo la ñu ne ko jibril la ku mu àndal muhammad sallallahu alayhi wasallam nee bi ñu ubbee ñu fekk benn waay bu toog yëpp ay riwaayaat yu wuute la te xam ngeen ne ay riwaayaat léeg-léeg danay wuute fekk dañoo nekk benn waaye léeg-léeg danañ wuute du nekk benn fekk yëpp wér na donte danañ wuute fekk du nekk benn fekk yépp wér na waaye boroom xam-xam yaay xam yii nan lañ koy boolee loolu nag xam-xam bu xóot la ci xam-xam xadiis nee na waa ji ñu ngi teg ab jàll ci peggam lu mel ni ay ngegenaay ñu tegaat lu mel ni ay ngegenaay ab jàll ci pegg càmmoñ bi nee waa ji daal su dee nii xool si ndeyjoor day kontaan ree kanam gi belbeli bu nee nii xool côté càmmoñ day mer kanam gi satasati nee na ma ne ah kii moom moom mooy kan Jibril mu ne ko kii de mooy sa baay Aadama mu ne ko waaw jóg bi ak jóg bii moom lan la mu ne ko jóg bii ngay teen ci wetu ndeyjoor mooy ñi war a dem àjjana ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ci xeetam yal na yàlla boole ñu foofu jóg bi mooy ñi war a dem sawara ñëpp ñëpp ñëpp ci xeetam yal na yàlla musal lu ci nee na su nee nii xool ñi war a dem àjjana xol bi day bëgg kanam gi bélbëri waaye su xoolee ñi war a dem sawara ne sam xol bi day jeex mu commencé ñëkk nee na ñu yéegal ma ci asamaanu ñaareel te romb naa yonent yàlla Ibrahim xam nga riwaayaat yi boo ko xoolee nag léeg ki muy wax nu la fekk ci asamaanu benn du ko ki muy wax ci asamaanu ñaareel lii bokk na borom xam yi wax ni xadis ndax léegi day wax lii boo ëllëgee mu wax la le waaye ñiy wax la dañu xam xam-xam xadis déedéet dañu xam xamul xam-xam xadis ndax borom xam-xam yi nga xam ne ñoom xam nañ xadis ak nan la ñuy boolee ay xadis bu bii wuutee ak beneen ba su bii waxee lu wuuteeg xadis ba boroom xam-xam yi dañuy wax ni balaa ñu naan bii moo folli bee wala bii moo wérul bee wér dañuy xam ndax xadis yi mën nañ leen a boole wala déet ma joxeel ko misaal xam ngeen am na benn riwaaya yonent yàlla bi dafa wax ni ku laal sa awra sa njàpp laal sa awra ak sa na beneen riwaaya bu ni buñ ko laajee waaw ku laal sa awra ak sa loxo mu ne ah loxo mooy la du loxo cër la awra ba cër la nu muy yàqee njàpp mi xam nga kon day mel ni bii day weddi morom ma fekk dugg weddi waaye borom xam-xam yi danañ ko boole maanaam yu noonu mbir la mu xóot ci xam-xamu xadiis kon nee na bi ma fekkee yonent yàlla Ibrahim alayhi salaatu wassalaam nee na maa ngi fekk yonent yàlla Ibrahima ca asamaan soo soosee imaamu Zuhri mu nettali ci di jële ci mu ne Ibn Hazm nettali nu jële ci Ibn Abbas nee na bi ñu yéegalee yonent sasam ba mu àgg fa yonent yàlla Ibrahima nekk nee na dégg naa kirij kirij kirij kirij kirij kirij kirij mel ni xalima ji bind xam ngeen ne daa ku yore àlluwa di bind am na fu muy toll da nga dee kéej kéej kéej kéej rawante bu xalima boo soosee ba muy soos bi waaj a jeex nee na ma laaj waaw kirij karaj jooju jan la mu ni ñu ni ko mooy xalima ci suñu borom bi bindee dogal yi mooy kii ci ji noonu allahu akbar kooku day keroog gis day kéemaan moo tax yàlla mu ne laqad raa min ayati rabbihil kubra na ba gis lu ko yéem gis nga sa euh, ak suuratul najm mi dañuy mayante doole dañuy mayante doole nee na ñu farataal ci man juróom fukki julli comme ni ma ko waxee sànq ñuy wàññi di wàññi di wàññi ba yegg ci juróom ma tënk comme tuddoon naa ko waaye nee na ba sunu borom ni ma laa yubaddalul qawl la daya juróomi moom jeex na foofu la yem kenn du ko changé waat nee na mayit yonente bi ni mayit rus naa delluwaat waat sama borom nee na falaa gis sidratul muntaha comme ni suñu borom indaha sidratul muntaha indaha jannatul mawa ba euh, aaya ji jeex nee na yàlla muur na ko ak ay kiiraay yoo xam ni kenn xamut nu mu toll ma ni ba tëx nag biir ajana nag faf <laughs> ah ajana nag moom xam naa ni moom fa la yëf ya daanoo nag ndax jàpp naa ni moom ku ni fa ba moom ah ah yonent bi de comme bu génnee ñëwaat bu demee dana duggaat mu amul problème waaye xam naa ni day moo tax ngeen dégg Idris Idrisa da ngeen dégg nit ñi di ko nettali di wax loolu su le sulmol war afaanaa makaana aliyan am na ci nettalikat donte dama koy nettali li istinaasi rek waaye wéralu ma ko ndax gisuma ci borom xam-xam yi ku ko wéral donte nag mi ngi ci téere yi tax eh, eh, téere yi siyar yi ne Idrisa bi ko suñu borom yéegale ba ca kaw da kaa dugal bi àjjana bi visité ñu ne ko mu ne ah génn kii kat moom dëgg-dëgg kenn dafa dëgg du kenn ñu ni moom la aaya ji tekk na war a faanaahu makaanan aliyan donte nag war a faanaahu makaanan aliyan moom dëgg la moom waaye nag ndax biir biir àjjana la moom gisuma tegtal bu koy wane waaye daal yéen te ba amul problème ba mën naa génnaat ndax dina duggaat waaw nee na gis naa fa ay façon couleur yu rafet ay lu'lu ay zabarjat nee na suuf sa sax na da ngay tibb ca suuf sa fóon sum waaye affaire bi mel ni parfum lañ sorti foofu bo deme ci al-qayyim ci téeréem bobu mu jagal al-hadi al-arwah moy khalamal yi ila bilad al-afrah jital len jëme len ci keur ak xewal ga muy aljana yàlla sun borom jugal nu fa subhanallah al-azim bu la jappale aljana misal la ko laltu yaag wana maariqu masfufatun ak njeganaa yaag wa zarabiyu mabsusatun ak ha suuf sa gazon ba moket ya mir ya ot ot ot ot ot daanaka yow da ngay daal dem ba mu yàgg rek xaw tuuti kan boo gaawee saalit moom jëmi nettali gi ñu koy nettali rek moom da ngay daal di saalit moom te it nag àjjana moom ne comme ni moom fi nekk nii amut di ko waxtaanee amut di ko tafsir amul di waxi xadiisam amut dugg fa yépp a ci bokk yem kenn mënu cee summi kenn àjjana fi ne lu ñu ci wax ba waaji saalit ba xal bu summi mbubbam sànni kenn mënu koo boo boo ko boo jëlee mbubbam it boo ko solee mel ni yoon boo ko fóotee di nga ko summi ko ndax dana la summi waat ndax àjjana ñëpp a ci bokk yalla suñu borom boole ñu fa duggal kon mi ngi nonu te riwaya yoy werna euh imam bukhari netel nako ci kitabus sala netel nako ci mi tafsir bani israil moy suratul isra netel nako ci suratul hajj ak suratul anbiya ci nettali qisasul anbiya ba imam muslim tamit solo nako ci sanyam ci kitabul iman imam ahmad ba legi netel na jële ci musnad ci musnad ñu jële ci abdullah ibn shaqiq ne dama wax abu dharr ni ko waw man de su ma gisoon yonent bi dina am laaj bu ma bu ma intéressé sax ma laaj ko ko ci mbirum isra wal mi'raj nee na ma ne ko waaw shaqiq ibni abdullah wala abdullah ibni shaqiq ma ne ko yow loo bëgg laaj yonent bi xam ngeen lu mu ko bëgg laaj laaj bi am na solo kat mu ne ko ndax yonent bi ba mu demee gis na yàlla am gisu ko foofu moom am na coow yu bare bare bare ndax gis na yàlla wala gisu ko Abu Zarri ni ko moo ne jot naa ko koo laaj sax de man mii ngay laaj bi nee na bi ma ko laajee ni ko waa gis nga yàlla mu ni qad ra'aytuhu nuuran anna araahu gis naa ko waawaaw waaye bi ma ko gisee nag ak leer la kooku nu ma gisee jëmm ca kon nee na loolu la ko yonent bi tontu sallallahu alayhi wa sallam ba léegi imam muslim nettal na ci saxiixam ñu jël abdullah ibn shaqiq abi darin nee na ba ma ne ko hal ra'ayta rabbak mu ni nuurun anna araahu leer nu ma koy gise maanaam mi ngi mel ni tey ci misaal su fekkoon ci poto bii laa jëm su ma doon joxee misaal suñ misaalum addina bii wa donte wallahi matalu aala benn waay bàyyi ba may jub poto bi rek mu taal benn projecteur affaire bi ni tay ci sama bët yi ndax poto bi dinaa ko gisati déedéet mu ni leer la goo xamante ni boo nee boo jubi moom suñu borom ak leer la boo ko jubee rek mu ni day fulu sa bët yi moo tax xam ngeen ni ca tafsiru aaye suñu borom Moussa waxee dama walaa ba gis yow suñu borom suñu borom ni ko doom a gis te jëfandikoo ko lat li biit la bu lay ni yàlla kenn du ko gis démb rek ci suba waaw démb démb ci suba moo tax gis nga borom xam-xam yi ak ndongo yi ak ñi toll ci njàng ba mel ni man nan ñeme débat rek ci ànd ak yar yu bari dana leer démb démb ci suba am na benn jigéen ju ma woo am ku mu toogal ñu nekk ci debaa bu metti waaw ndax suñu borom mën nañ koo gis fii ci àddina ak mënuñu koo gis ak lan defe naa laaj ne man na ña fàtte naa yi ca des waaye ci tawfiqi suñu boroom yàlla defal na tawfiq ñu di ko faram-fàcceel di ko leeralal di ko leeral ba waaja la mujje mu ne ah dëgg dëgg neexul ba neexul waaye lii nga wax moom xam-xame na mu ne yow moom bu soobee yàlla dinaa ñëw ñu jàkkaarloo ba seet si la loolu firnde bi ma ci bëgg a nekk rek mooy da lay wane kon kooku am na lu tàbbi ci ab xolam xaw ndax gëm na ko mu gëmu ko waaye magum jëmm mu jël di défendre benn mbir ba kam doon woor waxal mooy wax di jigéen mooy wax ci geneen wet ga moom muy góor di wax ci geneen wet ga waaye dem na ba lii nga waxoon dëgg dëgg dëgg nag lu yenn maanaa te dafa xam-xame moom moo génn loolu ci gémmiñam ma gis ni kon ndekete ñu bari ñooy seen nga di leen taxeeg di leen sànni ci réer la ñuy dem rek waaye boo leen leeralee rek ñu jéggalu yàlla subhanahu wa taala kon mu ni ko ak leer la nan laa koy gisee masala moom nag dinaa ko lépp ba dara sa biir ñëw ma gën cee leeralaat waaye insha allahu liñ jàpp ne mooy la gën a dëgër moom lañ jàpp ne mooy li gën a dëgër donte léeg nga gis ay riwaayat yu mel ne gis na ko moom suñu borom waaye borom xam-xam yi nga xam ni ñoo ñu xóot lañ ci wàllu xam-xam dañuy wax ne gisul suñu borom ndax laa tudrikul absar ñëpp ci bokk yam wa huwa yudrikul absar innakum sa tarawna rabbakum bokk na ci maa ngi fàttaliku démb li ma tontu waa ji dama ni ko bi ma ko indilee ay tegtal ba pare dama ni ko ci wàllu xel ndax xel yàlla da ko def pour nit ñi di ko jëfandikoo ma ni ko ajana mboolem xéewal ya fa nekk amul àdduna loo dégg ñu ne la xéewal la gu am ajana àdduna rek gu am ajana rek amul àdduna turwee fi am nangu nga loolu wala waaw mu ne nangu naa loolu ma ni ko ban sens kon mooy nekk ci yàlla di digge ak xéewal ci àjjana bu ngeen ñëwee ma defal leen nangam di ko baamtoo ko baamtuwaat te loola ni koy defalaate ci kaw suuf ko ban sens lay amati mu ne ma loolu du am sens ma ne ko wujuhun yawma idin naadira di ngeen xool yàlla yàlla da ko bégalee waa àjjana su fekkoon danañ ko gis ci kaw suuf kon c'est pas la peine bu koy bégalaatee moo tax yim bégalaatee biir àjjana yëpp dafa amul fii nangu nga loolu mu ne wax dëgg yàlla loolu it nangu naa ko nag ma ne ko jeex na kon gis yàlla gi amul fii ndax yow boo gisee yàlla ma gis ko ma sàmba gis ko ma demba gis ko donte ñeneen ñi ko ban sens mooy nekk di dugg àjjana ñu naan ni tey la seen xol bi sedd di ngeen gis yàlla gisoon nañ ko ci àddina kay lu sama xol di seddaat duñ koy gisaatee doy kon gisu ko woon da ngeen koo bëgg a gis wujuhun yawma idin naadara tey ngeen gis ko yàlla na yàlla boolem ci ña koy gis kon yooyu yëpp ay la yoo xam yu mat di bàyyi xel la bokk na ci riwaayaat yi nga xamante ni Euh, ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci imam ahmad mu ngi nettali ba léegi ci musnad ba léegi damay indi ay riwaayatam ba doon te ñeneen dañ koy nettali nee bi ma yëgtee nettali waa Quraysh ni leen dem naa ci isra wal mi'raj nee na dañ maa weddi waaye biñ ma weddee nee na sunu boroom daal di may wan natalia mi ngi mel ni rek su benn waaye ñëwoon man ko ñëw naa mbaam loolu ci seen jàkka bi benn waaye bëgg ko wedal loolu ne ko jàkk ji ñaata poto la am xam nga jàkk yëpp bokkuñu ay poto xam nga jàkk yëpp bokkuñu ay poto nee na mu mel ni sunu borom daf ma tegal image su jàkk ji may xool la lañ may laaj yëpp ma di ko tontu te yooyu ñëw na ci euh, histoire ci taarix lu gën a yaatu nee na nag fekk jamono ji ñu mës a dem Sham ci Jérusalem ña nga fa ñoom bi yonent bi waxee xam nañ ni dëgg dëgg dëgg nag lii moom nit mënu koo nekk li ci fekk demu fa gis nga euh, ñëw na ci ay ba léegi yonent bi saa sallam ne dugg naa ajana ma dégg kerij karaj karaj karaj karaj ma ni waaw loolu may dégg moom kum doon tappit tappit jooju ñu ne ko kooku de bilaal la moo nar a nekk sab noddukat nee na ñu daal di may wax loolu mu ne ah qad aflaha bilaal kooku de texe na raaytu lahu kada wa kada wa kada moom de gisal naa ko nangam ak nangam ak nangam di ko limal lam ko gisal ci ay xéwal ci biir ajana nee na bi ma gisee Moussa mi ngi nekk ponkal mu njool ca kaw muy melal Moussa nee na bi ma ko gisee kawar gaa ngi sëpp lépp ah nee na am na ci loo xamante ni sax dafa dem ba muur nopp yi moom kawar gi ni mu baree ma ne waaw Jibril ku njool kii taxaw kum doon mu ni ko kii mooy Moussa alayhi salaatu wasalaam nee na ma seen beneen waay boo xam ne daal oh moom boo xoolee rek sa xel day dem ci nit ku baax wala borom xam-xam ndax ni mu amee hëybaak ak wegeel ak taar ak rafet waa kii kan la ñu ko kii mooy sa baay Ibrahima alayhi salaatu wasalaam nee na ma romb tuuti rek affaire bu xisaw xisaw ay nit tiim di ko lekk mu ne waaw ñii moom li ñuy lekk xisaw na di lu mu doon jibril mu ne ko ñii ñooy ñi nga xamante ni ñooy lekk yàpp nit ñi ñooy ñi nga xamante ni jëw fenn rambaaj jaxase fimiste ila axir yi ñoom loolu ñu doon lekk moom la lañ suñu borom di fayee fii nee na ma gis benn waay boo xam ni dafa xonk cër bët yaa ngi bula mu rag loo raglu ba nga xam boo ko siggee xool ko sax doo ko ñemee xoolaat ñu ne ko kii mooy waaja lojoon gëleemu yonent yàlla saalih ga mu tuddoon nan xudaar ibni saalim idi mbaata asqaha xon ko cur ñaaw ko ji bula ñu ne ko kii mooy xudaar ibni saalim nee na ñu indil ma ñaari ndab benn bi ñu teg ko ci ndeyjoor benn bi ñu teg ko ci càmmoñ nee na benn bi lem moo ci nekk benn bi meew nee na ma daal di jël meew nee ñu ne ko asabtal fitra am na beneen riwaaya nee na bi ma yegsee ñu daal may ma nettali ko gaa ñu daal koy weddi nee abu jahli nag abu jahlin wa ma jaalna ruya allati araynaak illa fitnatan wa sajara almalam fi alqur'ani ila akhiri ah nettali sajaratu zaqum nettali nangam nee na abu jahlin dafa reetaan ba daal di daanu ci wittal leen ma gaaw ma ñu wittal ko tàndarma mu ne indi leen ma tuuti beurre wala fromage mu indil ko ko mu ne lii de mooy saqum saqam saqami leen maanaam lekk leen mu ne lii de la ñu yent bi tiitale naan moom mooy saqum nee na loolu la abu jahlin doon def ah, alayhi laanatullah nee na bi loolu amee nee na jot naa faa gis masiixu dajjal ci jëmm ji ko suñu borom bindee gis naa isa gis naa muusa gis naa ibrahim ah nettali ay yëf yu baree baree baree bari nettali gis naa Ibrahim ak ya nga xamante ni moom la fa nettali loolu tamit ñëw na ci beneen riwaaya nee na gis naa benn waay boo xam ni ku njool la ku sëq kawar la siggi ba ca kaw ma laajte ñu ne ma kii mooy Moussa ma gis benn waay boo xam ni moom daal dafa xaw a digg doomu njoolut gàttu waaye nag yaram waa ngay nes na si ma ni waaw kii kan la ñu ni kii de mooy isa ibni maryam mu ni su ma ko doon nurle fii kële lay nuroon kële mu joxoñ kenn ci saxaaba yi kam joxoñ kan la waxoon naa ko fi de jibril la nuroon jaxya orwat ibni mas'ud mu ni bu ngeen gisee orwat ibni mas'ud mii gis ngeen am na beneen riwaaya bi muy nettali yonent Yàlla ibrahima dañu bi ma nee tënd gis ibrahima muy dama koy xool xoolaat sama bopp man man daa mel ni daal ab ceeb laa jàkkaaral di gis sama bopp am na riwaay loolu la wax xam ngeen yonent yàlla bi ku nur woon yonent yàlla bi nee na man daal damay siggi xool ko xool sama mu ni maanaam cër bu ma xool ci moom rek dinaa ko xool sama bopp maanaam mu ni dafa mel ni daal affaire bu ñuy ku ñëw rek jàkkaarloog ab seetu damay si xool ba taxul tànk siggi xool saa yow ma siggi xoolaat bopp ba xoolaat sama bopp ma siggi xool dënn bi xoolaat sama bopp mu ne moom daal dafa mel ni daal ab copier la ci man rek sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñëw na ci yeneen riwaaya yu baree bari yoo xamante ni euh, dañ koy tënkee noonu ngir bañ jëlaat lu bari ci waxtu waaye yonent bi saa sallam nee na bi nga xamante ni gars yi laaj nañ ma ma am yu ma tontu am yu ma nakk nakkal nee na sunu borom daf maa mel ni ku ma xëccal jàkka ji ba jàkka ji jege si ma bay jege këru aqil aqil ci doomu abu ta euh, abdul mutalib bi la bokkoon aqil moo ali ibn abi talib ñoom génn géeño gi la nee na mu mel ni affaire baa sama kanam may gis di tontu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ñëw na ci ay riwaayaat ci ay xadiis bokk na ca lam leen waxoon sax mooy bu ngeen ci amee lu ngeen di went am na seen caravane bu dukkee woon jëm baytil maqdis ñu ni waaw caravane bi am na gëléem gu ca rëcc gëléem gu xaw a doomu taal la ña ngi koy wër waaye ña ngi ko jàppee ca garab sàngam romb naa leen te effectivement ñooñe bi ñu yegsee bi ñu leen laajee dañu wax jour tel suñu génn gëléem rëccoon na kon yooyu muy ay kéemaan yoo xam ni sunu borom defal na ko ko صلى الله عليه وآله وسلم بقنا في رواية يتمت ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم نينا بما يجي سدرة المنتهى جيت يمي جيت منف كلان ما جخ جلي كلان ما جخي آي جيخ انتل سورة البقرة كلام يالا ديجي نما سو خيات مم سيابو نيو خمين جاكم يلوم باري باري باري كتي أمو بقال يالا ديجا تابي أجنا بصوب لولو إمام مسلم صلى الله عليه وسلم حديثا عمر بن الخطاب ba léegi mu nettali ci ab riwaay boo xam imaam na ko ci musnad nee na bi ñu nekkee ca baytil maqdis benn bis dañoo nekk ci baytil maqdis ci seeni jamono nee na Omar daal di bëgg a julli nee na ñu daal di koy tegtal fa nga xamante ni fa la yonent bi daloon ak la nga xamante ni mooy daamar jamu yoroon alburaaq mu daal di jullee foofa beneen riwaay ibni kathir mi koy nettali riwaay bu yéeme la ibni kathir nee na abu sufyaan xam ngeen ni xiraq dafa waxoon abu sufyaan lan ngeen xam ci yonent bi alayhi salaatu salaam abu sufyaan nee na maa ngi yàkkam ci am occasion bu ma ko galgalee waaye bëgguma fen ndax ñoom duñ fen allahu akbar te boobu abu sufyaan yéefar la wala duggagul ci lislaam waaye ñoom daawul wax lu amul nee na maa ngi lu ma wax rek maa ngi wut occasion bu ma ko daanalee nee na waaye nag bëgguma fen ñoom duñ fen nee na ma jékki-jékki ba mu yàgg rek am porox ndollu si ndaw xam nga porox ndollu si lan la porox ndollu si nee na mu ni xiraq la moom sax li lay wan ni moom ay caaxaan la nekk moom dégg nañ mu naan génn guddi jóge na ko fii dem baytil maqdis jóge baytil maqdis yéeg ba ca ak <laughs> xam nga nit moom bu defee noonu moom xam nga gis nga nit nit nit nit ku doy waar moo doy waar léeg-léeg gis nga nit mën naa provoquer lu garaaw yokk ca ay phénomène nag yi ko gën a garaawal ba yow boo la war a gëm sax moo la yóbbaale moom xaqtaay nag jàpp ni xiraq la da koy gëm nee na bi mu waxee loolu xam nga xiraq day am ay buxaabaat ay jaamukatu yàlla yu mag ay asaaqifa ñu koy wër kenn ci ñoom daal ñu koy nii wax na dëgg de loolu de dëgg la buur bi daal di sikki xool ko ni ko dëgg la yow loo ci xam ba di ko fekkee mu ne ko axan ah kay dëgg la de loolu Ibnu Kasir mi ngi koy nettali mu ne ko yow noo xamee mu ne ko man maa doon garde jàkka ji baytil maqdis mu ne ko am na benn guddi damaa ñëw bunt bii pare tëj bunt bii tëj fenêtre bii tëj fenêtre tëj bunt bii tëj bunt bële tëj fenêtre bii tëj bunt bële dem ba ca gannaaw xëcc xëcc xëcc affaire mel ni miir ba daanu ci kawam ma di waaw ma xëcc ba sama doole jeex ma bàyyi fa daal di woo ay nit ñu ñëw jàppale ma nee na bi ma ñëwee ma woo gaa yi puus puus bi ñu xoolee mel dafa am aw xeer wu ci weer wi sës ñu ne ah lii de kenn mënu ko bu yeboo a bàyyi leen gudd wa ah waa lii di jaaxal nañ nee ñu daal di dem tëddi nee na li ñu tëdd lépp maa ngi jaaxle affaire bi lan moo ko war a def ñuy guddik tey nee na bi ñu yeewoo ci suba sa bi ma ñëwee ay tànk ay mandarga yi gëléem euh, aw fas wu fi jaar ak mandarga mu ne war ne fii am na lu ñu fi yeewoon nee na yooyu laa gis te ñun ay jàngkat lañ xam naa ni lii tekkiwut lu dul ab yonentee fi ñëwoon démb ko allahu akbar loolu ibni kathir mi ngi koy nettali ci tafsiram kon di lay wan ni kon mbir mi moom lu am la su ko defee kon yeneen riwaayaat yi nga xamante ni moo ci ñëw euh, am na ay riwaayaat yu bari yoo xamante ni ñëw na ci xëy na ñoo ko tënk noonu gàttalee ko noonu dars bii di ñëw insha allahu danañ leeral lenn ci aslëf ndax sunu borom jibril yonentu sa salam gis na ko wala gisu ko ak leeral ñenn ci ñi koy weddi ñiy weddi histoire bi loo xam ne ay borom yi xam-xam wax nañ ko lu lay wane lii lu sax la tey it leeral ni nekkul gént la am na ñoo xam saxal nañ ko waaye dañu gént la waaye du gént kon leeral ni mbir mi lu am la ñaareel bi du ak gént même bu nekkee gént sax dafa nekk gént amaat ndax wa ma ja'alna ru'ya allati araynaaka illa fitna xam ngeen ni yonent lépp lu mu gént gis ko sax loolu luy am la waaqi la waaye mbir mi nekkul gént jëmm la ya koy taxal nag loolu ay borom xam-xam leeral nañ ko bu baax a baax insha allah dars bii di ñëw danañ ko gën a leeral di ñaan suñu borom mu def ci ñun dégg topp wala ilmu inda allahi taala wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi